sant bu baax di gërëm waxtaan wi gàtt na waaye am na solo yaakaar naa li nga wax leer na naññ ba nga xam ne jéem cee tegaat leneen day yokk ak lëndëm wala da koy lëndëmal waaye buñ bëggee gàttal rek ko tuuti ci ni mu tàmbalee ba fi mu yem rek ci tuuti ndax dafa am ay question ak ñoo xam ne war nañoo def ay taalixaat ci waxtaan wi pour ñi nga xam ne fekkiwuñu woon jotaay bi mu ngi commencé rek ci wax waxtu importance bi nga xam bi nga xam ne am na ko li mu njëkk mooy dane waxtu moom xéewal la koo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko jox jaam bi ndax nit ki booy xool dundam gi lépp sunu borom subhanahu wa taala ci waxtu la ko tënk mooy bi ngay feeñ jamono di nekk sa biiru waajur di diir ba nga fay nekk booy xool ab waxtu la woo xam ne sunu borom da ko fixé boo feeñee jamono it diggante bi ngay dox diggante bi ngay feeñ jamono ba baa ngay mën a dox ab waxtu la diggante la diggante boobu yi ba baa ngay mën a dugg di jàng ba baa ngay pare ba baa ngay génn àdduna lépp sunu borom subhanahu wa taala da koo def ci waxtu kon loolu day firi firi kon waxtu xéewal la ci bépp jaam xéewal gi mu nekk xéewal ak njariñ gi mu nekk ak importance bi am moo tax sunu borom subhanahu wa taala di ko di ci waat ci ay ayat wala ay suuraat yoo xam ne bari na lool ci alquran boo xoolee wal fajri wal asri wad duha wal layli was subhi ida asfar yooyu yépp sunu borom subhanahu wa taala ci waxtu la tudd waat suñu borom nag lu muy waat lu ne loolu day tegtale loolu am solo bu loolu am solo li gën a amaat solo ci waxtaan wi mooy jàngal nañu nan la ñuy organiser waxtu loolu moom yaakaar naa ku ne ci ñun war na koo jàng waaye rawatina nag ab jàngkat ab élève ñoom ñoo gën a soxla lii ndax bëri waa na koo xamante nii li ko tax a échec ci njàngam ñàkk a mën a organiser waxtoom rek la ndax léeg-léeg nga nekk ak nit di jàng nag moom léeg-léeg sax yaa koy expliquer ci classe bi li ngay jàng waaye bu ngeen defee compo wala ngeen def devoir moo lay man ñaare dalaa gën nu muy gën a organiser waxtoom ndax am na ñoo xamante ne nii duñ jàng ci mbooloo am na ñoo xamante ni bala ñoo mën a jàng dañoo gis mbooloo te ñaare jàng ci wéet daa ëpp dal bu jàngee ci wéet boo amee lu la lënt boo ñëwee ci mbooloo mi gàggantiku boo demee nga jàngaat ci wéet day ëpp solo moo tax léeg-léeg élèves yu bare bari léeg-léeg nga joxe devoir nga naan yow li nga xam ne maa la ko expliqué woon fekk ne problème bi du loolu problème bi mooy ki nga nekkal dalaa gën a organiser waxtoom xëy na am na waxtu yu muy jàng yoo xam ne moo gën yow waxtu yooyu moo tax kon élève bi xam nan la ñuy organiser waxtu day nekk loo xam ne lu solo la sa biir ak indi ci yu baree bari nee na xam nooy organiser war waxtu da lay dimbale ci mu sakkan waxtu wi sakkan ci yow xam noo koy organiser da lay dimbale waxtu wi sakkan bari ci yow ndax fi mu toll nii eh, am na waxtu yoo xamante ne nii mën nga cay jàng mën ngaa toog une heure deux heures de temps di ca jàng waaye doo comprendre dara waaye am na waxtu woo xamante ne tey man ngaa toog trente minutes rek nga jàng ko nga comprendre lu bari li koy waral mooy yow xam nga nooy organiser sa temps sëñ bi loolu indi na ci ay leeral yu baree bari waaye nee na pour nga mën a organiser sa waxtu fokk bala ngaa sa bis bi da ngay da ngay taxtiit maanaam da ngay planifier li ngay def ci bis bi maanaam boo xëyee suba ba midi di jot wala ba 10 heures di jot xam nga li nga war a def bu midi jotee ba 2 heures jot xam li nga war a def ngoon gi xam nga li nga war a def mooy xam nooy planifier journée bi wala waxtu wi ci boppam nga xam noo koy planifier daa tax nga mën a jariñoo waxtu wi bu baax a baax a baax waaye am na ñoo xam ne problème bi loolu la mooy mënuñoo planifier seen journée waaw bu fekkee ne da ngay da ngay muraaja ku ne xam na ne muraaja am na waxtu wum gën ci nit ki am na waxtu wum gën fajar gi xëy na baax na ak bu dalee ngoon waaye am na aw xaat yoo xam ne day fekk say articulation ak say sa xel day sonn waxtu woowu boo cay jàng dangay jàng lu bari te doo comprendre dara kon xam nooy taxtiite ngay planifier de journée day am solo lool loolu leeral na ko bokk na ci it nan lañ mën a jariñoo waxtu mooy ba tey mooy lu ci ne nga xam heure bi nga koy def problème bi mooy yow war ngaa xëy nee nga di nga jàng alxuraan da nga wird da nga jàng xasaay da nga jàng say leçon te loolu lépp ci benn bis nga ko war a def te bis bi ay waxtu la war ngaa xool yow boo xëyee suba ba 10 heures lan nga war a def 10 heures ba 11 heures war nga war a def waaye yow xamoo loo war a def da ngay xëy suba dem jàngi boo ñëwee leçon yi bari te yow xamoo waxtu wu ne lan lan nga ca war a def loolu nag da lay indil jafe-jafe moo tax léeg-léeg leçon yi tegu nii xasaar yi tegu nii léegi doo xam fooy tàmbalee fooy yam mooy lan mooy mënoo organiser sa waxtu xam nooy organiser sa lay permettre nga mën a jariñoo sa waxtu loolu indi na ci ay leeral yu baree baree bari te it wax dëgg yàlla bu fekkee da ngaa yor leçon yu bari di jàng lii may joxe lépp dama ko joxe ay exemple ci ay élèves parce que ñoo fi ne nga war a jàng ab dog boo war a jàng ci xasaayit dog war a jàng ci alxuraan war a jàng matière yu baree baree baree bari léegi nga lépp fas yéene naa ko def xam nga ne loolu ci ay waxtu lay ay waxtu te waxtu yi maxduda da nga am heure booy lekk am booy naan heure booy nelaw te lii bari bay bëgg a dee nekk sa kanam il faut nag nga organiser xool yan mooy li ëpp importance moo tax mu ne am na foofu fu mu waxee mu ne da ngay jiital al awla awlawiya li nga xam ne moo gën a am importance ci waxtu wi nga koy def waaw gën am importance ci waxtu wi nga koy def waaw bu fekkee da nga jàng juróomi isib wóor na la ne tey isib dana jël 30 minutes wala 1 heure de temps wala nga ne waaw léegi xaar ma def ñaari isib ak nisif xasaa yi jàng yu gën a guddi yi yaa ngi ci waxtu jàng ne ci vacances nga xool ne ah comme daal barkeelu rek laa ci bëgg naa jël xasay rek nangam naa nangam ma jàng ba defee nga jàng sa ay leçon booy wirdu nga wirdu yàq dara da nga fii gañe fi waaye am na ci loo xamante ne nii du ak daanukate la te loolu gërut ci jànkat kon loolu moom mu ne xam ni ngay organiser sa waxtu day tax nga mën jariñoo sa waxtu waaw ci topp mooy bokk na ci lii tax nga mën a jariñoo sa waxtu mooy waxtu wi ngay li ngay jëfandikoo nga nga tërkiis nga concentré wu ci maanaam boo xasee ba ne da ngay jàng bu la dara fàbbi ah bul tax bu la bu la dara bi maanaam yow tey da nga ne diggante 19h ba 20h damaa bëgg a réviser sama ay leçons donc kon jëlal portable bi nga teg ko nële jëlal tele bi nga fay ko jëlal rajo bi nga fay ko lépp loo xamante ni wóor na la ne mën na laa yàqal nga jël ko teg ko à côté loolu dana tax nga mën a jariñoo waxtu wi bu baax a baax waaye tey problème bi li da nga ne dangay ngay muraaja yàlla boo jëlu téléphone ak ne da nga ciy muraaja jël sa téléphone ne da muraaja defoo ko mode avion am na ñoo xam ne mën nañ laa woo dooy nuyu waaye bu la sa papa woowee wala sa kilifa wala force da nga koy wuy bu ko defee tey une heure yi nga bëggoon a jël ni da koy toog muraaja doo doo doo ko mënati loolu kon fàbbi na la kon bokk na ci li tax ngay mën a jëriñu sa waxtu nga tërkiis ci li nga xamante ne ni moo la tax a jóg concentré wu ci loolu loolu da lay dimbale bu baax a baax a baax leneen li nga xamante ne ni day tax nit ki du mën a jariñoo waxtoom bokk na ci mooy ñàkk ko ñàkk ñàkk am pas-pas ci ni mu planifié maanaam ñàkk koo gëm daal yow daal gis nga sa benn moroom ne heure sangam lay jàng heure sangam lay wàcc matière sangam lay jàng yow itam nga toppandoo ko rek te loola te xëy na bokk leen bokk leen programme bokku leen programme yow ci programme kayit nga nga sukkandiku ñàkk am programme boo xamante ne ni sa programme bopp la xool ne yow journée bi lii moo la ci arrangé nga doxee noonu loolu day tax yow doo mën a jariñoo doo mën a jariñoo sa waxtu bokk na ci sax li tax nga xam ne nit ki du man a planifier ni muy planifier du baax wala du mën a sukk du mën a tënku ci organisation boobu mooy planification boo xam ne dañ la koo forcer defoo ko ci sa cooba rek boppam comme li ma jox exemple bi ma joxe léegi léegi élève ñëw boo xamante ni dañ koy tegal programme boo xamante ni xëy na moom moo gën ci moom waaye moom bëggu ko heure sàngam ngay xëy 8 heures de la war a fekk classe nga toog ba 8 heures 30 daal di ñëw yooyu yëpp day tax doo mën a organiser boo boo gisee école di lefalool da laa bëgg a jàngal nan ngay mën a planifier sa temps ba nga mën a jariñ waaw ndax boo gisee ñi réussit ñëpp yu ci bari ci loolu lañ jaar ba réussite mooy xam nan la ñuy planifier te am fulla nag ci loolu waaw maanaam nit ki dangay ngay am fulla ci yi nga xam ne jàpp nga ne moo lay jariñ waaw waaye ñàkk fulla wees ñàkk fayda fulla mooy bëgg dara xam ne lii moo lay jariñ kaneen man la ciy jële waaw loolu day yàqal ab élève élève da ngay am conviction di nga dégg turu ne nag dafa mett dafa nangam dafa nangam waaye moo lay jariñ waaw nga concentré wu ci loolu concentré wu ci di nga ci jariñu bu baax a baax baax xam naa sëñ naa waxtaan bi bari na te question yi bari na naa am na ñeen ñoo xamante ni war nañoo def ay ay ay ay taalixaat di la sant bu baax di la gërëm royukaay nga ci képp kuy boroom xam-xam muy mag muy ndaw li gën a neex ci waxtaanu sëñ takkal takalluf du ci am da ngay yëg ne borom xam-xam buy wax li wa ci illaahi mooy wax te li muy wax dana ko wax waaye du offensé kenn dana ko wax ci anam boo xamante ne nii du offensé kenn uslub bi ma ci gën a yéem nag ñun ñuy wax ñëpp moo ñu gën a dégg arab moo ñu gën a dégg français te doo dégg mu utiliser ci benn baatu wolof yu leer nañ ñi la lay wax ak misaal yu la jege-jege ci dal ak ak yar loolu nag royu kaay la ci ñun ñi nga xam ne nag ay xaye lañ soo ko dugg ci mbirum waxtaan da gis ñoo xamante ni macha allah xam-xam baa ngi fi waaye dafay am lu des mooy dal gi dal gi loolu nag bëgg naa ñu ñu roy ko ci ndax nit ñi moom kenn moomu leen li nga leen jox moom da leen nax ba jox leen ko rek waaye boo leen bëgg a imposer wala nga sëñ Cheikh naa misaal la ci loolu lim lay jox dina la ko jox waaye du la offensé dina ko def ci dal kàddu gi du jub te it baati français yi xëy na kuy soog a jàng da ngay bëgg yooyu waaye sëñ Cheikh naa ñun ñëpp moo ñu gën a dégg tubaab waaye bu da gis baati français yi daanaka doo ko ci dégg arab bi noonu waaye bay wax ak ñoo xamante ne ni xëy na ñëpp dégguñu tubaab ñëpp dégguñu français yi solo lool nga utiliser loo xamante ne xam nañ ko waaye nag di tawaadon lu am solo la fër ak kerse loolu amul solo bu defee kon ñu ngi lay sant bu baax misaal roy waay royukaay nga ci ñëpp di la ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala gudd fan ak wér gi yaram nga yàgg suñu kanam di ñu jiite ñu topp sa ginnaaw ak Cheikhul xam na fi quelques question yoo xam ne nag wàcc na fi kii dafay laaj wa inna yawman inda rabbika ka alfa sanati mimma ta'uddun bu ko leeral aaya boobu la bëgg wa inna yawman inda rabbika ka alfa sanati mimma ta'uddun ana beneen koo xam ne day laaj ne yow oustaz ñu ngi lay ñaan nga dénkuñu daal ñun ñi nga xam ne ay lañ nan lañ mën a organiser suñ waxtu ci façon bu baax a baax a baax nga xam ne duñ mën a yàq suñu waxtu deuxième question bi loolu la mooy nga dénk leen daal nan lañ mën a def jaroon rek hmm. ah hmm? ma def par benn waaw kon première avis bi mooy way inna yawmin inda rabbika ka alfa sanatin mimma ta'uddun lay laaj hmm. ko firil wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun loolu am na nuñ koy firee am na nu simple noo xam ne jàpp naa ne doy na ci mooy rek yàlla waxtu tënku ko jamono tënku ko tënku ko benn fan fa yàlla ak junni benn fan fa yàlla ak junni fan ci yéen ñooyam mooy ab yàggaay tënku ko benn pan fa moom ak junni fan ci yéen ñooyam maris na ko firee noonu am ñoo xam dañuy dañ koy firee ne diire bi ci boppam la maanaam benn fanub àllaaxira benn fanub àllaaxira mat na junni fani àddina waaye dëgg-dëgg jàpp naan lay moo gën a simple tax fi koy waxee day wone kàttanam kàttanuk yàlla wane ne ab yàggaay xëy na yéen lay tënk li ngeen jàppe yàggaay yéen yéen lay tënk waaye yàlla moom jamono tënku ko jamono jamono tënku ko benn pan fa moom ak junni fan ci yéen ñooyam man noonu noonu noonu laa ko jàppe am na ñu wax loolu te man laa jàpp am nag ñun ñu ñuy wax diire bi ci boppam dañ naan diire ba ci boppam benn bis ca àllaaxira day tolloog junniy bis ci àddina waaw jàpp ma ne nag euh, jàpp ba daal laa jàpp ne daal yàlla euh, diire tënku ko diire yi ngeen am yéen tënkut yàlla kàttanam yooyu tënku ko kàttanu kàttanu yàlla yooyu tënku ko hmm. waaw yaakaar naa loolu leer na kii day loolu xam naa ci li leer naa ci waxtaan wi rek nan la ñuy def ñoom élèves yi ba mën organiser organiser baax seen waxtu ñëwoon nga ci waaw loolu de moom niñ ko waxee rek xam nga niñ koy defee moom mooy li ñu waxoon rek ki doon élève ak ki doonut élève kenn ko ne la muy organiser mooy wuute waaye niñ koy organiser moom nen la mooy niñ ko waxee léegi mooy nga tëral nga tëral li nga war a def ci bis bi ak lu ci waxtu woo koy def loolu mooy tëral gi ci boppam moom la ca des nag mooy boo agsee ci def gi nag nga tënku ci nga tënku ci tëral nga ne waxtu sàngam laa yeewu kon nanga sabablu ba mën a yeewu ca waxtu woowa bone ne fi jamono yi ñu ngi julli suba ay six heures mooy tuuti mm-hmm. la ñu nodd la suba di jot daal boobaa yow nga ne man kon cinq heures et demi laay bëgg a yeewu kon na def luy tax nga mën a yeewu cinq demi maa naga nga am réveil bu lay yee boo xam ne danga koy régler ci cinq heures demi te bu sonee itam nga nga nga jéem a jóg ah. <laughs> bañ ko bañ ko bañ ko bës rek daal di ndax mooy tëral gi day jiitu bu tëral gi amee ba noppi nag sottal gi nag tege ci hmm. sottal gi tëral gi moo gën a yomb tëral rek ne cinq heures demi laay jóg julli suba waxtu sangam laay dëkk waxtu laay dem école waxtu sàngam laay wàcc diir sangam laay noppalu waxtu sàngam laay jàng samay nangam waxtu sàngam laay jàng waxtu sàngam bët waxtu sàngam laay tëdd tëral googu mooy jiitu waaye moo gën a yomb waaye la ca des nag mooy la nga tëral nag nga tënku ci nga tënku ci waxtu wi nga ci nga yeewu nga fexe ba yewu ci te loola mooy bu dee am na ñi nga dëkkal koo xam ne moom xam nga ne moom dana fekk mu yeewut nga ne na la hmm. wala nga am jumtukaay bu la mën a yee muy xeeti euh, réveil yi am ak yu mel noonu hmm. bu ko defee topp ko benn benn noonu rek na nga ko tëralee nga toppi ko noonu rek ak dogu nag mooy tax la nga wax ne waxtu sàngam nga koy def bu jotee nga def ko loolu mooy ak dogu moo la koy may loolu rek hmm. kon ñëpp ci yem dañoo wuute rek lañ cey def ab élève moom mooy mooy mooy muraaja ak yu mel noonu ku dul élève du muraaja waaye leneen lay def hmm. waaye moom la muy def lay tëral rek hmm. bu ko tëralee itam tënku ci rek loolu rek mooy tënk bi mooy tëral li nga war a def te tënku ci te tënku ci loolu rek mooy eh, liñ yëpp élève di def noonu lay nose waxtoom noonu la keneen itam di nosse waxtoom tëral ko te tënku ci rek tëral li nga war a def lu ci nekk jamono jan la ak diir ban lay doon te la nga tëral nag nga tënku ci loo ca àgg rek defe ko ni ko tërale woon waaw hmm. hmm. jërëjëf loolu leer na kii day laaj ndax seetaan tele ak football wala xeeti comédie yi nga xam ne moom la def ci télé yi bokk na ci sànq dundub doomu aadama loo yooyu duna yooyu rek dañuy sànq waxtu déedéet waaye mi ngi aju ci foo ci àgg mm-hmm. foo ci àgg ci misaal fi ne yow noonu nga noonu nga tëral noonu fi mu ne mën nga cee am waxtu woo xam ne diir boo xam ne da naan diggante nangam ba nangam dama ci seetaan journal télévisé ci misaal mm-hmm. wala dama ci seetaan ab série sàngam wala loo xam day féexal sa xol waaye fekk nga xam nga waxtu wan lay doon bu fekkee télé la boo xam ne yoroo yoroo contrôle bu dee loo xam ne yaa koy tegal sa bopp yaa tànnal sa bopp waxtoo koy teg bu dee loo xam doo ko tegal sa bopp waaye xam nga waxtu wan lay jàll te amal na la njariñ man koo dugalaale ci sa biir ci sa biir li ngay tëral nga dugalaale ko ci dugal ci nekkat euh, trois heures ba trois heures et demi dama ci seetaan ci seen sangam nangam mm-hmm. tamuy doon lu am njariñ loolu la waaye du caaginu seetaan tele ci boppam rek day day yàqal nit déedéet waaye li baaxul nag mooy dëkk ci dëkk ci nag bëgg xëy ba ngoon rek ne ci kanam tele bi moom ak la ca jàll lum lu mu baax baax baax loolu baaxul ndax dalaa yàqal leneen dalaa yàqal leneen kon jëm seetaan tele rek aayut waaye na fekk la nga ca nga tànn ko nga tànn ko danga hmm. da xam ne waxtu sàngam ba waxtu sàngam ci seen sàngam nangam moo fay jàll te nangam jooja soxla naa ko da nga koy dugalaale ci sa biir sa biir euh, plan bi ngay def mooy li ngay tërale li ngay def bis bi da nga ko ci dugalaale bu jotee nga dem seetaan ko bu jeexee nga xam ne jeex na nga dem àggale la nga nekkoon la ca sës nga sësale ko ci kon jëmi seetaan tele rek du da day yàq waxtu waaye nan lañ koy seetaane ak lañ cee seetaan loola dana yàq waxtu mën a nekk hmm. Euh, ak yi ci des yëpp noonu la seetaan télé seetaan euh, lépp sax ci télé la daanaka wala seetaan ci ci ci téléphone ci téléphone wala ci tablette wala ci lu mën doon mm. lu caagam lépp lu ñu seetaan rek day yàq day sànq waxtu waaye nag dëkk ci ndax boo ci dëkkee rek boo ci defee waxtu wu ëpp rek mooy am na leneen loo bàyyi lu lu la amal njariñ wala lu la ëppal njariñ sax wala lu doon farata doon farata lu mel ne kii jàng moom lim ñuy jàng mu di ko nafar di ko xoolaat ngir gën koo man ngir koo gën koo xam loolu farata ci moom mm. loolu moom moom la war a jiital ci ay yitteem leneen lu mu mën a lu koy amal njariñ nag moo xam ci tare la jóge wala ci téléphone la jóge wala ci tablette la jóge wala day jóg sax dem ci béréb sàngam lu mel ne fekk ji aw waxtaan waxtaan wu ñuy def xam na ne daare kaamil bi sàngam sàngam waxtaan sàngam danañ ko fa def te amal na ko njariñ mu dugalaale ko ci kiyam mu dugalaale ko ci ci tërale ni muy tërale li muy def ci bis bu jotee mu jóg dem fam am mu dem teewe ko bu noppee mu xam ne loolu jàll na la ca sës kon loolu rek mooy nit ñi nose waxtu kon yooyu yëpp mënees na luñ mën a jariñoo lu ne rek mën na caa dugg waaye nag ëppal ci len moom bu amee rek mooy da nga da nga sànq leneen te loolu mën naa doon lu ëpp solo mën naa doon lu gën a doon farata. jeex hmm. na sëñ Fallou bu fekkee nga. ok jërëjëf euh, sëñ Mohamed xam naa mel ni am na laaj yu fa doon sax waaye dafa mel ni euh, laaj yu ñu laaj xam naa benn rek lañ ciy mën a jukki rek bu ko defee ñu laaj ko sëñ Cheikh naa lu doon dafa kii dafa dégg ci biir waxtaan mu lu mel ni tàggat yaram lu am solo la. ci ci waxtu ndax mu doon laaj ndax nan lañ ko war a mën a organiser fii ci Touba ba xam ne nit ki dana ko mën a ko mën a mën a yomb ci moom daal. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. tàggat yaram mooy tàggat cër yi nit ki tàggati cëram bañ nangul ko bañ nangul ko dëgg dëgg loolu mooy tàggat yaram loolu moom ku nekk mën na koo defal boppam fa nekk loolu moom daanaka yoonu kenn newu ci kenn ku ne mën naa tàggat yaramam ci këram ca waxtu wam ko wam ko juboo bu fekkee xam na yoon yi ñuy jaar léegi bu dee ku ko xamul sax am na tele yu bari yoo xam ne dañ ko cay wone dañ ko ci jàngalee wala ba ci kii sax ba ci ba ci YouTube yeeg yooyu sax dañ ciy wonewaale nu ñuy tàggate yaram mooy cër sàngam boo ko bëggee tàggat nan nga koy tàggate kon jëfewut daal nit ki mën naa mën na koy defal boppam ca waxtu wa ko jubu loolu rek mooy tàggat yaram nag leneen leneen la leneen leneen la leneen loola mën naa ëmbaale tàggat yaram waaye du tàggat yaram rek lu mel ne football football ëmb na tàggat yaram ndax kii football mi ngi tàggataale yaramam waaye nit mën naa tàggat yaram te du football discipline sportive yëpp noonu la deme lu ci ne ëmb na tàggat yaram waaye du ne mooy tàggat yaram nit mën naa tàggat yaram te def loolu lépp waaye kay def loolu nag mi ngi tàggat yaram kon koo xam ne dañ laa tere football ci misaal ci tuuba tere la football taxul ñu tere la tàggat yaram ndax football ak anam la ci tàggat yaram waaye am na yeneen anam yoo xam ne du football te yooye yoonu kenn néew ci kenn du la yëg sax balay tereeka digal sa kër mën nga faa tàggat sa yaram ni nga ko bëggee ca waxtu ya nga ko bëggee waxtu yam na jubo kon noonu la jamono yi am nañ sax ay jumtukaay yoo xam ne nit ki da koy jëfandikoo di ci tàggataale yaramam bu fekkee euh, mënu koo defal boppam ci jëmmam mi rek xeeti welo yeeg xeeti yooyu yëpp nga xam dañ koy jëfandikoo kon tàggat yaram doonut lu xëy na lee ay man-man mooy tax nit man man koo am waaye ku amul man-man am yooyu itam moom sa jëmmi yaram moom moom yéeg yow say loxo ya loo ko digal mën na koo def say tànk loo ko digal mën na koo def yooyu loo leen mën nañ koo def boo leen dee digal ñuy def ba nga yilif leen rek loola mooy tàggat yaram loolu kon manees na ko manees na ko ku bëgg def leneen nag loolu nag day laaj fa nga koy defee mu doon luñ fa maye ku bëgg a football na fekk fam ko bëgg defee mu doon mu doon fiñ ko maye ku bëgg a def leneen noonu hmm. waaye jëmmi tàggat yaram ci boppam rek moom nit mën na koo def te du jot ak kenn dara ndax kenn sax du ko yëg ba di ko wax dara. waa hmm. kay jërëjëf euh, Serigne Cheikh naa ci leer yu am solo yooyu xam naa laaj mujj bi dañu jox ko euh, Baye Diop gi bu ko defee mu laaj ko ñu doog a joxaat Mohamed kàddu gi kon Baye Diop salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, sëñ bi baax a baax te comprendre thème bi am na solo te ni nga ko développé aussi vraiment am na solo leer na nañ mais modérateur bi aussi ni mu ko càmbaree aussi am na solo dama doon laaj si nos ak planification parce que maître bi ne si classe am wala planifier euh, par weer wala par semaine léegi est-ce que nos boobu amul yenn jumtukaay yu ñu war a boole Euh, du mën a forcé ndax temps bi euh, danay nos ñu ne feet euh, sàngam nangam nangam te mën na ko pét su ñëwul su boobaa est-ce bi war a mën a nekk carrément loolu laay hmm. hmm, de. est-ce que noonu. waaw ah, damay laaj nos si maître bi nga xam ne dafa ne si classe am war a def planification léegi nag eh, ndax nos bi dina war a ànd ay jumtukaay par exemple léegi eh, maître mën na planifier ba pare am jour yoo xam ne du ko wala am ay imprévu yoo xam ne dal na ko si diggante bi léegi est-ce que nos boobu dana mën a juste exactement waaw ah, waaw kii kii nos day sukkandiku day sukkandiku ci lim xam lim xam nos itam lu man lu man lu man lay nos lum xamit lay sukkandiku mën naa nos ci lim xam am lu yees loo xam ne daa bette xew loolu moom nit ki mënu koo moytu waaye bi muy nos moom ci lim xam rek lay man sukkandik sukkandiku ci misaal xam na ne daal bis sàngam bii moom bisub liggéey la moom la war a doon bu dee jàngalekat ci misaal bis sàngam bisub jàng la bisu jàng mu nos ci ni muy jàngalee bis booba waaye far bis ba ak si jànguñ loolu mënu koo mënu ko woon a mënu koo fànq daal mënu koo séentu kon lim xam rek ci lay sukkandiku nos bu ñu nos nag am lu ko bett loo xam ne mënu ko woon lu ñaan sóoraale boobaa day xam ne nos boobu moom mënut a wéyee noona nam ko nose woon du mën a wéyee noona ndax ba ne woon ci gaaw bi laay jàngale nangam waaye far gaaw bi ñëw jàng amut kon gaaw bi doo ci mën jàngale loola moom loola danga koy jàngale ci beneen bis xëy na kon yooyu mënut a ñàkk waaye mën ngaa nos ba noppi waaye am lu la ëpp doole lu ñëw ba nos ba munta wéyee noona da koy jéem a joyanti rek da koy jéem a joyanti ba def ca lang ca mën a def loolu bu doon misaal mi ci jàngale la ko waxe waaye bu ci jàngale ku mel ne kuy jàng ne nafar moom itam ba nos ko ne waxtu sàngam ci la ci lay nafar waxtu sangam ci la bëgg a nangam ci télé par courant bi coupé ca waxtu woowu loolu mënu ko seetaan waxtu sàngam ci la bëgg nafar waaye moom it waxtu woowa ku ko ëpp doole yónni ko ci misaal baayam yónni ko fenn wala sax kër gi am lu fi xew loo xam ne mënu ci dara loola mënut a def lam na kon li nga man rek mooy sukkandiku ci li nga xam nos li nga man loo ci àgg nag am lu la ëpp doole lu tey nga def ko nga xam ne lii moom du ci yow la nga ca mën a def nga def ko rek loo ci mënta def xam ne loolu mënoo ko moom ngir loo xam ne sa coobare kon loolu rek lañ ci man kuy nos ku man doon it loolu rek lay man loolu lay man euh, xëy na mën naa bàyyi yoo xam ne nag dana tax ba lu mel ne diggante diggante buy noppi ci dara ak buy defaat la ca topp diggante yooyu mën na faa bàyyi ab diir boo xam ne bu yàlla dogaloon lee bi mu ko bëggee sottal ci fanweeri minute dem na far ba fanweer ak juróom waaye diggante lii bim noppee ak la ca topp bàyyi na fukki minute ak juróom ci misaal kon juróom minute yi yàqu fii tey wàññiku rek ci yi mu doxaloon ci ñaari du yàq dara loolu daal mën nañ ko moom mooy diggante ñaari ñaari ñaari ñaari jëf bu may noppi ci lii ak la cay topp diggante boobu nga bàyyi fi as waxtu soo xam ne bu fekkee am na lu ëppoon fële dana ko mën a dabaatal fii bañ ko sësëri daal bañ ne trois heures laay noppi ci lii trois heures deux minutes lay tàmbale ci lii laay waaye nga ne trois heures laay noppi ci lii trois heures et quart ci misaal laay laay tàmbalee la ci sës ba lee bu ëppoon cinq minutes cinq minutes yooyu dana mën dugg ci quinze minutes yi nga bàyyi woon loolu mu mënees na ko nga xam na xeetu xeetu séentu la moom ndax da nga ne mën naa am li nga tëral ne dama koy def ci fanweeri minute man naa koo weesu baag ci fanweer ak ñett wala ñeent bu fekkee bàyyi woon nga ci diggante ñaar yi yi nag lu mat fukki minute ak juróom kon la ëpp fee dana mën a dugg ci li nga bàyyi woon fële yu mel noonu daal lañ mën a séentu waaye nag loo xam day bette moom duñ ko mën a séentu bu agsee ñu xam ne agsi na rek bu agsee itam lañ mën a def ñu def ko luñ a def ñu xam ne loolu ngànt ngant moom nit mënu koo mënu koo weesu mënu koo ëpp. Hmm. waaw kay jërëjëf euh, sëñ Seexuna ci leer yu am solo yooyu xam naa mel ni euh, waxtaan wi am njariñ gum am njariñ moo laaj yu bari xam naa dañu ñëw ci benn soxna rek bu am lu bëgg a laaj bu ko defee ñuy jox suñu Mohamed kàddu gi mu wóyal liggéey bi kon soxna si bisimilah. salaamaaleykum ci rafetlu waxtaan wi macha allah xam-xam bi yokku na fi man dama amoon benn question bu ma laaj comme ki nga xam ne tey jii dafa dëgër bopp lool mu waroon def dara waroon am benn affaire boo des benn waxtu muy dëgër bopp ak tendeefal moo koy gàllankoor chaque jour ba xam ne loolu day weesu loo ko doon conseillé tey boo ko doon conseillé dëgër bopp ba chaque lu war a def moom waxtu bi daf koy raw bis bi daf koy raw app bi daf koy loolu laa soxla woon ay conseil ku dëgër ku dëgër bopp doo xam ndax dana <laughs> rek léegi waa xam nga xam nga ki dem bay nos moom mooy daa bëgg sottal dara nit nag mënut a boole bëgg dara di def safaan ba ku bëgg a sottal dara day def luy tax loola mën a sotti ki nos lii tax lam nos mën a sotti mooy da koy dajee tënku waaye bu nosee te tënkuwu ca mooy kon day mel dafa bëgg dara nee bëgg na dara ba noppi di def luy jur safaan ba loolu tam munta ànd dañ naan nit du bëgg bëgg dara ak safaan ba yooyu mënuñoo ànd bëgg dara mooy li nga tëral mooy danga danga koo bëgg waaye di def safaan ba kon day mel da bëgg mbir ak safaan ba kon nit daal day xam day xam li mu bëgg li naan da ngay xam li nga bëgg na bu dee yow sottal lii nga bëgg da def lii tax nga mën koo sottal ta li tax nga mën ko sottal mooy li nga tëral nga tënku ci waaye nag bëgg ngaa sottal ba noppi te tënkuwoo ci li nga tëral mooy kon xam day xamu na li nga bëgg kon loolu lañ man mooy daanaka du conseil ndax waaye xanaa ubbi lay doon yee xalaat loo ko daal mu xalaatal mu xalaatal boppam ba xam ne lii jaaduwut munoo bëgg ne dama bëgg a sottal dara ba noppi lay tax mu mën a sotti defoo ko di def safaan ba sax la nga xam ne day teemu sotti loolu xel nangu ko xëy na ci wàllu googu la ñuy mën a wax kuy def lu mel noonu ñu daal bëggee dara day def lu mën a sottal loola waaye ne dangaa bëgg dara ba noppi di def lu koy gàllankoor loolu du du du xel nangu loolu lañ naan nit du bëgg dara ak safaan ba mun ta nekk da ngay bëgg dara maa nga bëgg safaan ba waaye bëggandoo ñaar yëpp ñaar yëpp mënuñoo amandoo ñaari safaan mënuñoo mënuñoo amandoo hmm. jërëjëf sëñ Cheikh naa waxtaan wi daa mel ni itteel na itteel na nit bu baax a baax a baax waxtu moom xale yu baree baree bari loolu mooy seen jafe-jafe ni ñuy def ba organiser seen temps moo tax daanaka li nga daan seetlu ci jataay yi nga xam ne gars yi dañuy ñëw di waxtaan ba pare doo xam dañuy waxtaan si wala dañuy jàng si alxuraan wala day jàng si day mel ni ñu fi teew ñëpp rek ku nekk rek waxtaan wi la tax a jóg waaw loolu naa ko ci jalsa bi bu baax te loolu am solo la jóg ngir dara boo ñëwee na da war a concentré wu ci loolu waaye yow yaa ngi ñëw da ngay diglu si waxtaan ba pare di dollu boo xam ne wóor na la ne ñaar yooyu mënut a di jàng di jàng alxuraan diglu war a waxtaan wi déedéet yow kon jàng la fi jàng moo la fi bon te boo xoolee jalsa bi day mel ni ci nekk rek da toog di déglu waxtaan bi moo tax question yu bari kii nag day laajte ba xam beneen élève la mu ne ndax dagan na ci ab élève mu jiital wirdu maxfuus avant waxtu wi ngir mën a jàng ay leçon maanaam avant waxtu wi ñaari waxtu yi nga xam wala waxtu yi nga xam ne daal moom lañ ko fixé mën na ko def avant ngir mën a jàng ay ndax loolu dagan na ci wirdu te mu jiital mu jiital mu jiital jàng jàng yi la soom moom bu dee bu bu suba bi la moom waxtoom teel na waxtoom du suba jot rek waaye njël la njël lu jiitu suba la njël mooy fi ne nii suba mi ngi doon daanaka six heures mooy dix njël daanaka ay quatre heures yooyu rek waxtu jot na njël jot na waxtu wo ku ci jàngoon bi du maafus jàng na ko ci waxtoom ku jógoon quatre heures et demi mun naa jàng bi dul maafus ci waxtoom la ko jàngee jiitalu ko da ko jàng ci ndax loolu waxtoom bu njël jotee rek waxtoom jot na bu fekkee waxtoom jotul nag te jàng say leçon moom amut waxtu wu ko kenn fixeel yaa koy fixé sa bopp kon yow saaboo saaboo waxtu wi du jotagul waaye jàng say leçon moom waxtu waxtu boo ko jotale rek mu jot kon da koy jiital da ngay jiital jàng say leçon boo ko jàngee boo cee noppi xëy na wirdu jot ñu def wirdu kon jàng say leçon moom ci sa loxo la nekk kul kenn kenn fixé lu ko wirdu yi moom fixé woo ko yow <laughs> dañ ne la waxtu wii kon bu jotagut mën na koo def waaye jàng say leçon moom amul kenn ku la ko fixé yow yaa koy fixé sa bopp kon yow bi ngay tëral yaa ko war a dugal foofu. na ko a dugal fi nga xam ne xam nga ne yow da nga jub te wird wi jot boobaa kon foofa nga dugal fa jàng say leçon bu waxtu wi wird jot nga dugal fa wird wi mooy li ma waxoon ne ci li nga xam ngay sukkandiku li nga xam mooy xam nga ne waxtu sàngam ngay jóg loolu yaa ko bëgg te waxtu sàngam woowu du fekk wird wi jot kon mënoo faa dugal wir wi danga koy dugal leneen loo xam ne moom sañ man mën nga ko faa dugal wérdu yi nga dugal ko ci waxtu nga xam ne waxtu waxtoom jot na nga dugal ko fa lu man doon noonu lay demee rek leneen lu man doon noonu lay demee li ne ci sa loxo moom yowee seet foo koy dugal li nga xam ne waxtoom nekkul ci sa loxo nag yaa koy fekki mm-hmm. yaa koy dugal fu tolloog waxtoom mm-hmm. yaakaar naa loolu leen kon xam naa waxtu waa ngi jot dañuy jox sëñ Basiru Jadara mu def ay taarixaat ci waxtaan wi sëñ Bas bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare ci weeru tedd wi ñu nekk ak ci bis yu tedd yi ñu nekk di nuyu sëriñ Seexuna di ko siyaare bu baax di ko sant bu baax tamit ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ne bi indil nañu ko eh, di eh, sant sëñ Mouhamed mi nga xam ne moo doon eh, ubbi waxtaan wi di ko jiite di sant bu baax a baax sëriñ Seexuna nag ci taxawaayam ci saa boo xamante ne bii daara ji eh, soxla nañ lu mel nii mu taxaw ca ca anam bi gën a rafet loolu ñu ngi ciy sant bu baax ci turu sëñ Moustapha di ko ñaanal sunu borom tabaraka wa taala gën koo sàmm gën ko fee yàggal liggéey bu am solo bi nga xamante ne bii moom lay taxawee mu gën koo mën a taxawee. li tax commission bi tànnoon thème bi tamit lépp liñ ci doon séntu gis nañ ko ci waxtaan wi ndax li tax ñu tànn thème bi muy waxtu ak solo su mu am ci biir lislaam dañoo seetlu ne rek fii ci biir Sénégal ñu bari ci ñun sénégalais yi jëmmi waxtu moom dafa mel ni dese nañoo xam solo si mu am ba fonkuñ ko lool moo tax nag ñi ne daal waras na ko boole ci waxtaan yi ngir soññaat nit ñi ñu gën a xam solo su waxtu gën koo joxaat yitte gën koo fonk ndax li ñuy sànq ci waxtu fii ci Sénégal buñ ko xoolee bari na lool boo wootee ndaje da gis ne lañ cey sànq ci waxtu kenn xamul na mu toll boo demee ci barabu liggéeyukaay yi ñu war a liggéey tamit lañ fay sànq ci waxtu kenn xamul nu mu toll te képp koo xamante ne bi bëgg ngaa jëm kanam nag moo xam ci sa wàllu diine la wala ci sa wàllu àdduna la fokk nga fonk waxtu jox ko yitte nos ko lenn lu ci nekk nga wutal ko waxtu te bu waxtu bu ñëwee tamit la nga ca war a def nga def ko ci ba mat sëkk waaye dañoo gis ne ñaar yooyu yëpp daa manqué nos ko waxtu wi manqué ne fii ci suñu réew mi waaye buñ ko nosee ba noppi tamit bu waxtu wi jotee lañ ca war a def tamit danañ ten ba duñ ca def lañ ca war a def te ñaar yooyu yëpp nag day sabab ak deltu gannaaw ci diine ak deltu gannaaw ci àdduna moo taxoon ñi tànn ko ñi tànn thème bi tamit ngir jox ko suñu seexu naa di tax it moom it ñi tànn ko mooy xam giñ ko xam ci fonk waxtu ndax euh, fonk waxtu moom mii misaal la ci misaal la ci anam yu bari waaye lim doon waxtaan yi lim doon waxtaani nii moom mii la ci ndax euh, ni mu nose ay waxtom ak nim mu ko fonkee yaakaar naa ku bokk ak moom ay ndaje bokk ak moom ay liggéeyukaay da nga ko ca naw danga nga xam ne tamit lim doon waxtaanee mi ngi da koy jëfandikoo bu wér a ndax saa bu ñu wootee am ndaje Euh, heure ba wax balaa jot boo bokkeek moom mbooloo mu ngeen mu ngeen tënkoo saa bu ñu wootee ndaje heure ba ñu wax balaa jot moom dana dana ñëw dana ñëw dana ñëw teew te buy ñëw tamit dana ko leer ne wala dana dana jàpp ne moom moo day ñëw teew rek ngir respecté waxtu yi waaye ñim ko séqal moom du tax ñuy ñëw danañ danañ ci raté lu baree baree bari waaye eh, fonk waxtu ak eh, fonk kàddoom mooy tax moom dana ñëw balaa waxtu wee jot bu ko defee loolu day doon lu am solo loo xamante ne bi misaal la loolu nag li li tax ñu war ko bàyyi xel mooy bu fekkee dañoo fonkut waxtu ki fonk waxtu moom dañ koy loor ndax bu fekkee ñëw na ca waxtu wañ ca la war a tàmbali ñeneen ñi ci des fonkuñu waxtu wi bu boobaa moom ñi ngi koy lor ndax ñi ngi koy yàqal lu baree bari ci lu mu waroon a def te defu ko waaye li nga xamante ne bi tamit mooy waxtu nasha mooy waxtu wi nga xam ne ci la nit ñi waroon a gën a sawar nga xam ne mooy li ñu wax waxtu yi ñuy wax ne ci lañ war a liggéey waxtu woowu aussi danañ ko sànq ba buñ ñëwee waxtu yi ñuy jëlaat waxtu lay doon yoo xamante ni day fekk waxtu sonn jot loolu tamit doon lu bari ci suñu réew mi mu doon loo xamante ni dañ ko war a dañ ko war a saafara ci barabu liggéeyukaay yi tamit gis nañ ne feeñ na ci lool da ngay gis nit ñi duñ fonk xëy heure wala même buñ demee ba fonk ñëw heure tamit ngir ne ay dañ leen tegal ay sanction moo tax ñu fonk ñëw heure buñ ñëwee ci heure ba tamit danañ fexe ba ci biir liggéeyukaay bi nu ñuy defee ay tappale ba nga xamante ne bii lañ waroon a liggéey lépp ci wàll war ko produire duñ ko def te sénégalais ku ne remarqué ne na bëgg na am am bëgg na alal lool te nangu gi ñuy wax ne nangu dañ ko liggéey tamit mooy danañ ñëw ci barabu liggéeyukaay yi waaye buñ doon xayma ca barabu liggéeyukaay bi lañ fa war a intaaj lañ fa war a produire buñ ko xoolee danañ gis ne par rapport ak waxtu wiñ ko joxoon euh, dana dana am différence bu rëy rëy rëy masalan tey bu fekkee dañ ko jox waxtu woo xamante ne bi mën naa liggéey produire lu tolloog junni ci ay exemplaires bu ñu xoolee moom buñ ko xaymaa li muy produire daanaka du mat sax téeméer wala du mat sax ñaar téeméer par rapport ak junni biñ ko santoon loolu nag la sabab mooy yàlla nattoo nañu ñu bëgg ak jaxasoo bëgg waxtaan bëgg yu baree baree bare yoo xamante ne bi daf ñuy gàllankoor ba suñu waxtu daal duñ ko duñ ko duñ ko jëfandikoo nañ ko war a jëfandikoo te loolu nag ci lislaam ñun ay jullit lañ lislaam gi ñu tënku gis nañ ni mu fonkee waxtu ak solo si ko sunu borom jox ci biir alquran ak ci biir sunna waaye ñun dañuy woote wa ak njullite ba noppi loolu ñu lislaam digal nag buñ ñëwee dañuy jàpp ne moom bokkul ci am solo ci misaal da ngay gis koo xamante ne bi da ngaa waxaale moom mu war laa liggéeyal wax ay ay waxtu waxtu sàngam la war a tàmbali waxtu sàngam la war a jeex dana fexe ba ñëw ci biir waxtu wi waaye bu ñëwee lam war a def dëgg dëgg dëgg du ko def da ngay gis jàngalekat boo xam ne ci misaal da nga koy fay par heure mu war a jàngal élèves yi bu ñëwee heure bi mu war a jàngale mën naa dugg ci biir classe bi waaye boo ko joxee ñaari waxtu mu war koo jàngale booy xayma woon lim jàngale dëgg bi daanaka du mat sax 30 minutes wala du ko du ko ëpp bu ko defee moom njëgum ñaari waxtu nga ko fay waaye lim la jàngaleel matu sax njëgu njëgu benn waxtu bu ko defee loola moom mi ngi woote ak njullite waaye mi ngi def loo xamante ne bi dàqoon naak loolu muy woote ndax mi ngi lekk loo xamante ne bi buñ ko doon xool ci lislaam dañ naan daganul ndax ñaari waxtu nga waxale kii waaye li nga ko liggéeyal ca dëgg dëgg buñ ko xaymaa matul ñaari waxtu benn waxtu lay doon wala sax mu yees ko loolu nag mu doon jikko yoo xamante ne bi waxtaan yu mel ni moo tax ñu koy indi ngir bëgg ñu koy nafaraat di ci soññu nit ñi ngir ñuy faj suñu bopp ndax kenn ku ne ci ñun feebar na feebar boo xam ne lii ma man mii di ko wax sax damay dal ndax buñu joxee ne heure sàngam lañu war a dajee heure boobu mën naa bañu ñëw maak samay moroom buñ ñëwee tamit lañ wax ne moom lañ ci war a def war koo liggéey mën nañ ko mën nañ mën nañ ko bañ a def boobaa nag loola lam ñuy jural mooy dañuy indil ak tarde ci wàllu diine ndax andi na buntu bu am solo ci biir Masaalikul Jinaan ci ni ñuy dundalee waxtu yi Sëriñ Tuubaa leeral ca nuñ mën a dundalee waxtu ci ay jaamu yàlla jaamu yàlla yooyu bu fekkee yow da bëgg ab jaxasoo bëgg waxtaan yàlla yooyu doo ko tal waaye bu fekkee tamit da ngaa nekk ci baragu liggéeyukaay war a produire tamit boo ñëwee fonkoo waxtu wi la nga war a produire doo ko produire bu boobaa da daal perte ci sa wàllu diina perte ci sa wàllu àdduna moo tax nag buñ bëggee defaraat suñu askan wi fokk ñu yaraat nit ñi ci nosu fokk ñu yaraat nit ñi ci liggéey fokk ñu yaraat nit ñi ci fonk waxtu mooy tax ñu mën a jëm kanam ci wàllu diina mooy tax ñu mën a jëm kanam ci wàllu àdduna te ñaar yooyu nag moom moom moom la ñu suñu borom indee ci àdduna ñu ñu jagal àdduna bi tundal ko ba mel ni mu war a mel waaye defar suñu ëllëg tamit ba bu ëllëgee ñu am ak texe te ñaar yooyu nag li ñu koy may mooy waxtu wi ñu suñu borom jagleel muy xéewal comme ni ko sëriñ si wax naa waxee ñu fonk ko bu wér a wér a wér xam ne ay jullit lañ dañoo jël engagement la engagement yooyu ñu jël dañ ko war a respecté bari waa na kuy fonk waxtu ku mel ni suñu seexoon naa bu fonkee waxtu nit ñi dañ naan ah moom di tubaab la mel ni lu baax tubaab rek moo ko moo ko war a jagoo tubaab ni mu fonkee waxtu ñun ñoo ko war a gën a fonk waxtu ndax ñun l'islam moo ñu digal lool suñu seexoon naa mi ma doon joxe misaal tey bu fekkee am nañ am ndaje mu ñëw ta fekk nit ñi ñëw du ñëw rek toog jàppi loxoy nee na mais indaali na ay jumtukaayam ya waroon a ci kër ga dana toog lig liggéey ngir bañ a sànq waxtu loolu misaal la ci misaal laa ciy joxe ndax moom misaal la ci wax dëgg yàlla boo xam ne li ci sëñ Mouhamed wax euh, day dëgg koo xam ne ku jaxasoog moom xam ko xam ne moom misaal la ci ay ci ci lu baree baree bari lii mu doon waxtaane nag da ciy misaal bu ñëwee heure bi mu ñëw ñu ne ci lay nangam di tambali te tàmbaliwu indaale na ay jumtukaayam yoo xamante ne bu ñëwee dana toog liggéey ngir bañ a sànq waxtu xam nga loolu kon exemple la boo xamante ne bi ku ci ne war na koy jël ñuy bañ a théorie nii rek di wax rek di dem waaye ñu xam ne lii ñuy waxtaanee buñ ko jëfandikoo daf ñuy yokk andil ñu ay njëriñ waaye bu fekkee tamit dañ koo sàggane e, neenal ko ba ay benn benn rek ñoo koy fonk ñeneen ñi ci ñëpp dañuy daal di jàpp ne leen lii lu munta nekk la ñu bari ci Sénégal yi dañoo jàpp ne fonk waxtu moom ta nekk daal ku ko man rek yow yàllaa la ko jagleel daal wala wala miracle la te fekk ñun ñoo defarul suñ bopp rek ñoo ñun ñoo yàq suñ bopp ba àgg foo xamante ne bii dañuy daal di jàpp ne loola lu wërta nekk la moo tax waxtaan wi ñu indiwaat ko ngir bëgg ñu ji ci soññewante xam ne ay jafe-jafe la yu am ci société bi te bu ñu bëggee jëm kanam nag foog ñu foog ñu foog ñu euh, joxaat ko yitte kon maa ngi jégalu bu baax a baax ci kàddu yu ñàkk leer yi te waxtaan wi leer na nañu wax dëgg yàlla di santaat bu baax a baax a baax mbokk yëpp euh, rawatina sëriñ Cheikhouna bi doon wa def waxtaan wi di ko delloo di ko ñaanal sunu borom gën koo sàmm gën a guddal aw fanam gën a yokk ay xeewalam ba li mu bëgg taxawee lépp mu mën koo taxawee barkeb Cheikhul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam barakallahu fiik bas sëriñ Basiru waxtaan wi am na solo temps li kon bu ko defee ñu bàyyi xel ne eh, suba suñu waxtaan suba ki ko war a def mooy sëriñ Fàllu Buso Asan thème bi muy waxtaane mooy at taawun fil islam mooy solidarité ci l'islam ci la fas yéene waxtaan suba incha allah ñu ngi sàkk seenu teewaay kon ñu bàyyi sëñ Seexuna def ñaan ñu bàyyi ba suba allah wala sëñ Fàllu daam lu yokk waaw bàyyi ma jox suñu fàllu kon incha allah waaw bisimilah. Euh, euh, ci modération bi am solo xanaa may jàllal thème bi en français comme tënk nañ ba noppi te ñu ngi doon noddu mu mel ni comme ni ko sëñ mu Amet waxee rek suba ñu ngi war a waxtaanee l'entraide dans l'islam ki ki ñu ko dafa nekk sëñ Fallou Bousso Assane di sant bu baax ñi nga xam ne ñu ko doon bàyyi xel ci réseaux sociaux yi ci télévision yi ak ci rajo yi ak waa bitim réew ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi koy topp di taxawal foofu di leen sant jërë ngeen jëf ba suba ak jàmm kon suñu seex naa bisimilah قوي karim bi uli xabaab lil iyaal